bu Macky Sall yàqee dund gi yokk dund gi ci 12 ans ci ay fen ak naxasaay naxasa xandang du Ousmane Sonko mooy mën a lijjanti loolu instant yi kees état bi kees xaalis amu ci nañu ko xam gars yi lépp la ñu dóor barki xaadimal amul ci kees yi loolu moo tax gars bu ñu ñëwee accéléré gars yi ci impôt yi Macky Sall bu muy dem trésor public la ubbi raxas fa ba mu set directeur trésor public du génn di wax fekk ñu fa 1 franc déglu leen laa wax trésor public 1 franc fekk ñu ko fa ay paquetu paquetu liage lañ ko def yóbbu lépp fekk ñu un franc ci compte yi dara nekku fi dara Macky Sall lépp la yóbbu dafa vider trésor public bi loolu moo tax gars bu ñu ñëwee ñu rey seen bopp mi ngi doog am ñu rey seen bopp ci impôts yi pour gars yi récupérer impôts ñu yareel Sénégal pour ñu am dara mu ngi noonu dem nañ lebi ji ay eurobond gis ngeen ko bu fi xaalis nekkoon duñ jog sax naan dañuy lebi ji ay eurobond gisuñu dara mënoo liggéey ci loxo nen bàyyi luñ leen fi dara lépp la nguuru Macky Sall bi sàcc bàyyi fi tous moo leen boo leen gis ñuy wax yëpp wax laaj leen ñaat lañ fi bàyyi est-ce que mos ngeen dégg waa APR naan waa liggéey leen parce que ñun bàyyi nañ fi tant de milliards est-ce que dégg ngeen ko kon xam na ni ñoo leen gën a xam ne ñoom bàyyiwuñ fi dara vide nañ compte yëpp dem seen yoon ay vrai délinquant euh, financier criminel financier wax ji lu muy rëy yëpp mosoo dégg benn apériste bu taxaw ne leen liggéeyal bàyyil naa la fi lépp wala liggéeyal bàyyi naa la fi tant de milliards duñ ko def de parce que xam nañ ni bàyyi ñu fi tous loolu moo tax ñoom Ousmane ko indi benn politique stratégique mooy topp gars yi pour ñu fay lempo yi bu ñu fayee lempo yi au moins dina am lu ñuy dolli ak li ñuy euh, eurobond yi ñu dem lebi ji euh, en eurobond loolu yëpp bu ñu ko dajalee xëy na dinañ mun a alléger euh, yenn affaires yi. ci loolu la ñuy wër parce que il bu ñu la bàyyilee benn kër goo xam ni bàyyi luñ la fi dara kekk lañ la fi bàyyi mais sa waay bala nga koy installé kay balaa ngaa wax waxu installation kay di nga am loo loo xool loo mën a def pour mën a jënd benn kii bu foo toog foo mën nangam. bàyyi luñ leen fi tous lépp lañ dóor léegi nag au lieu ñu woo peuple bi ci debaat yi de ñu ñuy woo ci ay bouganerie ak des âneries ku nekk génn bëgg ñu bëgg a sàkkatoo bi ay non wàññi leen lekk bi wàññi leen naan bi comment nañu expliquer comment dañuy bëgg sàkketoo sàkkatoo bi jàppee peuple yi du ñuy nit douze ans Macky Sall sax saaxi réew mi yokk lépp këpp kees gi dem yoonam ñii ñëw deux mois ngeen ngeen non bu leen wax lee bu leen wax lee wàññi leen ceeb bi wàññi ñu wax lu ñu war a lu ñu war a politique wala lu ñu war a wàññi ak lu ñu war a wàññi. Hmm? ñoo yabaate quoi. ma benn góor nee na bu ma demee am benn <laughs> benn góor nee na Macky Sall ku koy wuutu day gàtt xees ah moo gàtt xees ñu toogaat mu ne day xaar deuxième tour toogal xaar deuxième tour te ñu jàmm <laughs> da nga ne góor ana góor gi ana góor gi xanaa daa dee dama ñuus ko góor gu la waxoon ne kuy wuutu Macky Sall day gàtt xees <laughs> koo xam ni fen rek bugaan fen rek adduna fen wut bii relaté fen wër bii relaté fen rek la grand boobu di def adduna bi da ko fen ana ana benn góor neen loolu bu góor gi deewul demal ma ñuus ko demal ma ñuus ko parce que fenkat nga xamu góor gee mën a fen nga ne woon Macky Sall benn góor moo ma ne woo kuy remplacé Macky Sall day gàtt xees <laughs> gars yi ne ci ginnaaw tam dof yi di tàcc ah, ah, duulu tooy xet ba suñ jonn yàlla tey ki ki ki falu de gàttul xeesul

Et le peuple-là, ce peuple-là va protéger ce projet, par A ou par B. Par tous les voies et moyens, nous allons protéger ce projet. On va réussir ce projet. Personne. Si vous xoolee sax même Bouganeri et ses âneries fu ñu peuple bi dañ leen fait foofu di saaga seen ndey boo des seen commentaire yi dañuy saaga seen ndey ba des, yaay bu ñu dañuy dañuy yëngu seen ndax benn doomu doomu biiral bu ñu jur bu toog fii boo xam ne waxe dof lay wax gars yi di saaga ndayam ba ba seen nekk ci bàmmeel yi di yëngu te xamul lu leen ñoo ko fi def nag ñoo ñëw jur ab doome xaram bàyyi ko fi muy wax waxi doome xaram peuple bi attaqué saaga ndayam ba sa yaay di yëngu ci sa bàmmeel ci bàmmeelam yépp ndax yow bu jëroon lu baax bàyyi ko fi kon lii yëpp du ko ci fekk ci bàmmeelam seen yaay mënuñu nalaw seen bàmmeel yi mu ñu tëddee bëggoon a noppali ko bàyyi fi ab doomu biiral buy wax waxi dox ñu saagandaayam ba seen yaay di yëngu seen bàmmeel yi nekkuñu ci jàmm ba ñu ñu dëkkal sax naa leen waaye yow looy yëngu-yëngu nii ñaa ah, sama doom de moo nekk fee dafee fi doome ma bàyyi woon ko ci àdduna mu ñu ngi rek moo tax mënumaa toog nii ay moromam di tëdd di noppaliku ci jàmm yow sa yaay ñuy saaga mu nekk ci bàmmeelam di wëlbatiku di wëlbatiku mel ni ku ku ay melentaan di matt ndax doome xaram juñ bàyyi fii duñu nutu dara fen rek du ñu sax duñ ci rus seen nday deey wala seen bàyyi deey fen ak sos rek lañuy def seen xol yu bon yi moo tax peuple bi ñu leen may jàmm demal moo tax ta fenkat yoo xam ne dañoo mën a fen ñoo dàq tëj seen compte yi nag koo ci gis <laughs> koo ci daq ku la dàq dul daq tëj compte seen compte yi xaw ma nan lañ koy def mais seen i nit rek ñoo ci commenté seeni nit rek boo ubbee fekk ñu bloqué ko comme deugur kecc fepp lañu tej tëj non mais nek ci lu bon baxul nek ci ay fen baxul nek ci ay fen nga tej sa compte ba mu bloqué ko kenn du amul fu nit di jaar nga tej ko wacce rido tej fenêtre tej buntu sa way da ngay da ngay am conscience tranquille comme man lima def ni sama compte yëpp ne yàmbalang ko fu la neex bindal fu la neex bindal <laughs> parce que dama tëj dama tegu ci lu deug ragaluma doomu aadama ak idéologie bu mu meuna indi bu indee violence man la fay fekk ma gën a violent bu indee xam-xam ma jaa ko xam-xam mais ñoom seen commentaire yëpp la ñuy verrouillé <laughs> ndax dañuy fen ba mu toj kat ñu verrouillé yi kan mu tëj kenn du fi ma damay fen mais kenn du ma kii noonu la ñuy dundee ñoom waa APR boo gis commentaire am da ko tëj ñoom ñëpp a verrouillé <laughs> mu ma doon nekk ci dëgg rek a baax nekk ci dëgg da nga am conscience tranquille doo tëj dara buñ buggee débat dide nga neul bismillah waxtan ngeen bëgg ñu waxtan loolu indi reewande kay ma jaalen leen reewande <laughs> ah buggaan daa mujjee vérifier compte ba dé mo ñu jottu dugg saga nañ ndayam ba mu toy xat xat xat mo ni ci laa contane ci peuple ma xamni peuple bi ñoy gor ñoy garmi mom pour mom da doon da doon bëgg nax peuple bi da doon waxu peuple na way sonko ñun loolu amul importance wàññil ciëb bi peuple bi bu mu jappé animaux nga xam ne dafa jàpp peuple dañoo xiif ñoom lekk rek la ñu wër ñoom ñëpp ñoo saaga ndayam nag ne ko boo ñu boo utiliser te suñ tur dinañ nangam tànn sa nday nga naan ñu wàññil ceeb beeg wàññil diwlin bi doom ak xaj peuple bi ñoo saaga ndayam xam nga loolu seytaane la dafa dem ci ay seytaane quoi non Sonko ñun sa yoon naw ci ay reddition des comptes bu ngay kii donc di négocier contrat la suñu yoon naw ci wàññil diwlin bi wàññil ceeb bi li mooy gars yi ñëw na la ñun bu ñuy xar du ñu bëy nangam tanal sanday genn ndey tour ci ay wàññi ci baga diwul na nga nit wala saaga ndayam ma daw ci dañuy muju tëj sen compte partout sen nday sax du nek ci jamm do ma xaraam yi du ñu nitu dara ay ñum ñi ngi fi de <laughs> deewaguñ de du xam ngeen ci tak tak len choc di lek sen di nan sen règle ndey ngi fi ba ñun ñu doon naan seen muuc seen réglu ndey ba léegi ñu ngi fi di muuc boo leen duggee ci suñu projet bi ak yàq dañuy muuc seen directu ndey ñun ñoo leen ko wax <laughs> voilà man nag may maay Mollah Morgun te wax naa leen ko bokkuma Pastef awma carte Pastef musuma toog ci réunion Pastef musu bokkuma Pastef man Mollah Morgun je suis libre ma kenn ma benn lu waaw benn doomu aadama tënkuma lu ma fii laay wax lu ma fii laay def and I don't give a fuck about the rest nay laayoo te peuple bi rek laay xeexal man man sama benn parti la am c'est le peuple sénégalais le peuple peuple sénégalais ku ko laal gis ma ku ko jege gis ma ku koy jéem a bund xatal ma taxaw le peuple sénégalais moo ma ñor kese mooy sama lépp mooy sama dund mooy sama dee point waaye projet bii moom peuple bi gis ci seen bopp man lu peuple bi bëgg laa bëgg peuple bi ñoo xool projet Ousmane Sonko Jomaay le peuple bi peuple bi ne projet bii moo leen doy Sonko moo leen doy Jomaay moo leen doy man leen loolu moo leen doy ñoo man leen ànd naa ci yéen <laughs> doon def neex na ndeyam lu ngeen bëgg rek man maa ngi ci peuple lu ngeen ñu ne ñun Sonko la ñu bëgg Jomaay la ñu bëgg loolu bëgg projet bi lañ bëgg défendre ma ñëw ànd ak ñoom jeex na rek <laughs> loolu moo ma boole ñoom de loolu rek moo ma boole ñoom man peuple bi laay topp lu ñu bëgg laa bëgg lu ñu bañ ma bañ Nous sommes seen gens rek laay la ci seen Nous ak seen wér lu dul peuple bi ñoruma nous tax noonu la comprendre ne bu des comptes à rendre le peuple bi la rendre parce que peuple est souverain nous peuple des gens dégg dul ci peuple vous êtes les lâches du peuple les lâches les lâches du peuple du peuple bi ay un peuple bi peuple dafa am dafa am ay workat yoo xam peuple moy peuple mais peuple du ay nit population ak peuple bokul population nombre la moy population peuple moy idéologie bëgg-bëgg bu ñu am damando ñu ne peuple c'est un peuple ay nit yu bolo bokku ben gis-gis bokku ben bëgg-bëgg ñooñu la ñu wooyee peuple mais vous faites di nombre de population lañ koy wax le pouvoir au peuple le pouvoir aux populations le pouvoir au peuple est sans délai le peuple donc vous avez leen ci peuple de population vous êtes des traîtres de la république ay workat ngène, ay corrompu ngène, ay merde ngène. vous la presse corrompus, les médias menteurs, manipulateurs, vous ne faites pas partie du peuple. Vous êtes des lâches, des traîtres de la République. Mais le peuple est toujours là, digne, intègre, souverain, de protéger ce projet. Par le peuple et pour le peuple. digne intègre debout vigilant suñu réew mi di ngeen ñu may jàmm ñu liggéey ko voilà doo anta babacar ngom ndengaleer sa baay sàcc fi bi hmm? ay paa yoo xam ni màgget seen maamaate maam bàyyi leen suuf si dem kompaloo ak Macky Sall dem nangu suufu ay kilifa ay nangu suufu ay village yu lëmb jaxase village ya ñëw indi a ah, ñëw indi policier koromp leen jox leen deux millions bu di jéem a corrompre ay paa ñu lànk yow amoo dara lay wax yow dama nga liggante say employé chaque jour ñu ngi ñëw ci man di jooytu chaque jour say employé ngi ñëw ci man di jooytu ñu ngi liggéey comme mbaam xuux xetu ginaar gi xasaw na ci koñ yu yu ko yu ngi ko installé yaa ngi leen di liggéeyloo di leen man bu ñu ma yónnee di li nga leen di wéef sax ay deux mille cinq cent ay mille cinq cent journalier non mais c'est lâche c'est lâche dama leen ngeen lijjanti seen employé yi Anta Babacar Ngom dama nga lijjanti sa employé te nga wax sa baay suuf si muy sàcc dégg voilà di maltraiter seeni employé toroxal len fanal len doo len leen sax cotiser taxe ay impôt boo yéen war war ngeen wax ci donc les gars comme ni ma ko on va continuer à protéger ce projet nañu ko jaral nañu ko jaral gis ngeen nu may protéger projet bi mu jaral moko. ko nu ko raw ngeen protéger projet bi parce que projet projet buy am projet B dara projet, ko et on n'arrête pas la mer avec ses bras projet B dafa war protecteur projet B dafa le don de soi pour la patrie c'est individuel pour une résurrection collective daf leen ko jaral jaral Ludul patriotisme animé humain. ma détermination détermination. l'autodétermination animé wu ma gis nga ma sama bakkan te sénégalais ni bu ma def ni ñenn ñi di gérer mbir ko du ma sama bopp ci danger ma dara De mandi manque tous di jël sama maan di ko solo di ci defaru ba nice jekk taaru yor sama toog yu tooy di dawal di naaw di ñëw vacances di xaj di dóor je l'ai pas fait je l'ai pas fait et je peux je pouvais le faire j'ai les possibilités et les capacités de le faire mais rus naa ko def bu dee damay romb ay doomu aadama yoo xam ni dañ ci waroon génn ñu sàcc leen rus naa di dund di gis ay nit yoo xam ni injustice lañ leen teg ruus naa di dund nekk ci sama jàmm di gis samay mbokki mbaar di souffrir en silence loolu moo tax ma taxaw tey di jaayante ngir ñu respecter sama peuple ngir ñu jox tër sama peuple mënuñu am dirigeant yu gën Sonko Jomaay billaahi bu leen sàgganee amul benn doomu aadama bu nekk ci seen kanam boo xam ne moo gën a souverain Sonko moo gën a digne Sonko moo gën a jub Sonko amul nañ ma kenn joxoñal kenn sénégalais yi loolu lañ xam moo tax ñu fal à deux cent pour cent jomaay à travers sunk moo ko njëkk am moo ko njëkk a am Ablaye Wade bu mu jógee bugg a doomam ci lañ taal dëkk bi doom ba daw Ablaye Wade seey Macky Sall bu muy ñëw di wax waxu troisième mandat doomu aadama yi jóg na ko garbakan tey dee rek mu daw Sonko moo taxaw fii ñu ne ko doo jàll mu a jomaay ñëpp daw dem jomaay amul benn politicien ci kaw suuf bu doomu ab jigéen jur bu gën Sonko amul bu ko gën a bugg réew amul bu ko gën a jub amul bu ko gën a fu amul bu ko gën a souverain amul amul de donc moo tax ñun ñu teg ci sañu bakkan du ñu weccee koo mukk Sonko ay ay ay ay duñu weccee koo mukk sonko ak caga ji di ay Anta Babacar Ngom du ñu weccee koo mukk sonko ak politicien xaj ku ti mbaw mbaw yi di taxawaalu mukk mukk ku yaakaar ne mun ngaa ñëw dal ci sonko ba dem te sa ndikk neewul kabaj xoolal xoolal luñ la waxati saaga ñu xoolal ñëwal ña ko doon jéem a def démb ak tey saaga nañ seen ndey ba ñu tooy xat na kenn ñëw boo leen doy góor rek ñëw leen yéen opposition bi ñëw leen ngeen fekk ñu fi loo leen jaay rek tey mu làmb bu dee reewande ñoo leen ko ëpple bu dee sañ-sañ ñoo leen ko ëppale bu dee xamadi ñoo leen ko ëppale bu dee débat d'idées ñoo leen ko ëppale fépp lañ leen mëne fépp fépp fépp di wax Sonko l'Afrique est fière de lui l'Afrique Afrique kontaan nañ ci Sonko billaay wallaay wa taalaay Sonko discours am la africain yëpp di réclamer démb maa ngi wax ak benn camerounais loolu la ma wax quoi mu ne ma ñun amuñu chance ma ne ko tax mu ne ma yàlla mayuñu ku mel ni Sonko ana ko waa fan mu ne ma je suis camerounais quoi mu ne ma ñun amuñu chance ma ne ko ah mu ne ma wëy yéen da ngeen war a jàpp jafandu ci seen waa yàlla ñi muy may lii bëriwul un camerounais dafa nu moo doon installé ko dama dangeen war a jafandu seen waaj am na dëkk yoo xam bu leen yàlla mayoon sonko <laughs> sonko dina mel ni yàlla foofu dina fa mel ni yàlla dina fa mel ni yàlla dina dox gars yi di tëdd muy dox seen kaw nii di dox seen kaw day mel ni Mali ñoom noonu lañ mel ak Assimi Goïta bakkan lañ ko teg bakkan <laughs> ku laal Assimi ñaata ñaata tentative lañ jéem ci Assimi Goïta ku ko jéem dee tubaab bi fu ne jaaree nañ fa Assimi Goïta ak lobby bii fekk na ñuy julli ñu bugg ko jam mu fu mu dem ñuy jéem a téer ak fa tara Assimi ngi taxaw chaque jour malien yi dee ndax Assimi ku laal Assimi dat leen ñu taxaw gar ci seen bakkan ne kii mooy suñu sauveur fu mu ñu woo bëgg nañ buñ koy buñ leen di embargo malien yi ñoo ñëw taxaw bu leen neexoon ñu taw ne Assimi yow bu ñu embargo duñ am lu ñu lekk duñ am lu ñu naan duñ am ceeb duñ am diwlin dañ on est content combat bu amna un sacrifice Damal, vas-y jusqu'au fond Assimi Goïta xool ginnaaw gis peuple de Yugo. Donc, souveraineté souveraineté souveraineté nous voulons la liberté en bas l'armée française etc. etc. et cetera un di gën tao. am fit di gën a taxaw ànd ak ñu récupérer nord euh, euh, euh, nord Mali ak salaire ba ci kaw ñoom ñoo may fit Burkina tëll Burkina taxaw ñoom tam taxaw Ibrahima Traoré may fit Burkina Burkina jóg teg ko ci a Traoré ñëw génn fa armée française bi rajaxe lépp ambassade ba tëj lépp nokk ko ca xaaj tëj fépp ñuy wax waxu souveraineté Burkina may envie même envie boobu envie patriotique vent boobu noonu mu mu jox ko ñi nga xam ñooy Niger Niger tam teg teg ko ci mu des Sénégal yalla may len Ousmane Sonko ñu ñew am souveraineté bobu xex ba jël ko am ay biddo xaraam ak kat bëgg a ñëw bëgg a ñëw naan dañuy infiltrer que dañuy jema yaax hey dama ne lu malien def ba am malien gënu ñu ci gënu ñu ci bay lu burkina bay def lu niger yi nigérien def loolu la senegal di def nonu lañuy protéger ñun moy nord du Mali Kigal tumbuktu Gao moy nord du Mali li euh, euh, courant bi jógee Mali dugg Burkina dugg Niger moo duggaat Sénégal mais fii arme militaire dugguñu militaire dugguñu Sonko moo ñëw mooy militaire de la rue un soldat de la rue soldaaru mbedd la ñun yàlla loolu la ñu yàlla may soldaaru mbedd ñu ay soldaar en uniforme lañ Sonko c'est un soldaaru mbedd

cay ñii lañ ma dénk nga xam ni kooku jàmbaar la nga xam ni kooku yéeneem rafet na nga xam ni kii bokkul ak Macky Sall bu ñuy tëjal nag ko muy mbëkk gaay foofu foofu mbëkk gaay taxaw ak jàqam lu mu mel ni ku mbott bu bu naan diwlin yooyu yëpp jeex na fi léegi lépp <laughs> loolu yëpp jeex na léegi premier ministre buy xool nii vitre yi président buy xool gaa yi nii eh, ay yi ñu ngi jaay fii caaf ba léegi caaf ta ta xoolal buntu Pikine nu mu jaxasooyee non di dem naan ebe eh, nañ la jënd buntu Pikine léegi mu kii nañ def lii nañ def naa président yooyu lañ am léegi yoruñu ay mbëfër mbëfër seen taar yi rëy ay du sukka biir yi nganta yoo xam ne mel na ku biir ku ëmb ñetti doom ñetti seex taxaw taxaw ñu wër waaw yooyu jeex na ñu lay nuyu mel ni ay kuy nuyu yàlla seen ñoom ñëpp seen xanaa xamu leen waa APR gisu leen ñoom ñëpp seen liggéey yàqu nii leen di nuyoo Macky nii comme ñu gis yàlla moo tax Amadou Julde Bayal Ba giseen nu yàqu lo Macky Sall yàq ndax sëgg nu ci gis Omar Sow jël doomam tuddeewu ko bàyyi tuddeewu ko yaay mu tuddee ko euh, Macky Sall Omar Sow Amadou Julde seen digg ñoom ñëpp la seen digg yàqu ku ci toog ak Macky Sall ay nafa tayow ay jaam lañ jaam vrai jaam yu xasaw xulu mos ngeen gis kuy nuyoo Sonko jomaay naan ko ni mos na na ci jamonoy Macky Sall amatuñ benn complexe ñun yéen Sonko <laughs> Sonko Sonko am complexe tubaab yi barki demb rek Macky Sall ngi won France Alizé di nan sangara barki demb bu mu fi joge ba léegi Macky Sall Macky Sall du dem togi xana Macky Sall moom amul jabara non Macky Sall man dama yeurum waji quoi Macky Sall ngi ci monde bi di wëndaalu ak tatam yu reuy bat lap batar batar batar batar batar batar lap lap batar batar top eh, président français bi ma nga won barki démb di nan sangara eh, Élysée wëndaalu taxawaale ñu koy yónni rek <laughs> mais pas boobu moo ñàkk ndayam fayda Macron di yónni ndayam rek demal ma fii muy daw non te mun na jur Macron muy daw demal ko Amérique demal ma fii kaay nanal sàngara bi te demal ma fee Macky Sall batar batar batar batar batar batar lappe lappe nga xam ni gars yi dañoo ragal tubaab ragal tubaab ragal tubaab ba ambassadeur tubaab président ko war a gis <laughs> ma ne ñii ambassadeur tubaab président ko war a gis mais ñii ñoo ñu yàpp quoi